société nationale d'électricité moo leen di may seen revue ñu ànd xëy yër yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu mouvement des entreprises du Sénégal di MEDES ni démb amal nañu seen ñaar fukkeelu édition forum du premier emploi forum boobee nag li nga xam ne moo ko tax a jókkoo ak li ko wund bokk na ci maanaam jàppale ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ngir nag ñu mën tekki ci réew mi waaye nag mën demal seen bopp ni démb la ñu doon amal ci King Fat ministre Dame Diop mi nga xam ne moom lañ dénk lu jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi ak Aminata Assome Diatta mi ñu dénk wàllum njënd meeg njaay meek Yankhoba Diattara mi ñu dénk wàllum économie numérique ñi ñëpp ni ki démb tee woon nañu ñaar fukkeelu édition forum du premier emploi yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na ñii nga xam ne waa MEDES nee ma ñoom président Mbagnick Diop ñoom nag daan nañuy joxe lu toll si juróom-ñett ci ay commandement ngir nag a dina tax ndaw ñi am ci lu ñu jàpp président ma ñu na juróom-ñetti commandement yi maanaam ma ngi noonu secteur privé bu Sénégal nag jamono ji nee nañu ñoom engagé wu nañ accompagner soutenir état bu Sénégal ci mbooleem loo xam ne ay disposition la ak décision maanaam yuy génne ci conseil national de la jeunesse ñoom daat nañuy xëy wax ne jamono ji ak fi réew mi toll fi àdduna bi toll ak crise bi nga xam ne maanaam moo am ci réew mi jot nañu daal di soppi aw doxalin ci lu jëm ci xalaat ndaw ñi daal di am liggéey ba tey ci biir journal bi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar ne am na loo xam ne maanaam jar naa leeral la forum yii nga xamante ni waa MEDES def nañu ko maanaam toll na si ñaar fukki at waaye nag forum bi yëpp maanaam gratuite la koppar ya nga xam ne waa MEDES dugal nañ ko sa ëpp na benn milliard ministre Dame Diop ni ki démb yëkkati na ay kàddu nee na mouvement des entreprises du Sénégal jamono ji am nañu dëgg ci kaw ñëpp ndax ñoom ñaar fukki at a ngi nii ñuy xalaat lu jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi moom ministre Dame Diop na jamono ji nag ndaw ñi danañu leen gën a gunge Dakar Times bàyyi mbir moomee wax ci mbiri Idriss Déby nga xam ne moo nekkoon jiitu réewum Tchad ni ki démb la faatu journal bi nee na ca opération si la ñu rey yi ki nga xam ne mooy Idriss Déby bal la ñu ko dóor ci dënn ko ko dóora yéen kaay gi di li li mu gis ci mbiri Idriss Déby maanaam mooy règlement de compte familial yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Idriss Déby fal nañ ko bërki demoo Ndiaye juróom benn lu mandaam waaye nag ñàkk na juróom benn lu mandaam boobee yéen kaay gi di réew mi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu lu toll ci fanweer at def na ko ci bopp Tchad ci ab coup la jote woon ci réew ma ci ab opération ci la ko rayee jamono ji nag maanaam xel yi ma jaax ndax ñenn ñi nee nañu Idriss Déby altine la dee ñenn ñi nag nee nañu talaata ñu ko rey militaire ñoo wax loolu yéene kaay gi xëy duñu xibaar naan ñu am na ay généraux yoo xam ne jamono ji nag ñoo wër Mohamed Déby mi nga xam ne doomu Idriss Déby la ngir nag réew ma am jàmm journal bi di Dakar Times nee na am na ay généraux yoo xamante ni rey nañu leen ci opération bi xam ne fi la na assemblée nationale moo waroon a nga xam ne mooy nguur gi waaye nag bi mën nañoo ne na g ki nga xam ne mooy seenum njiita kaa gi xëy duñu xibaar naan ñu jàburu Idriss Déby jamono ji nag moom ak njabootam daw na nañu làqatu fi nga xam ne maanaam mooy Dubaay yéenekaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Mohamed Idriss Déby mi nga xam ne jamono ji nag moo yore réew ma moom xam na lu bare bare ci armée bu Tchad ndax jamono ji sax moo nekk ci conseil militaire ba yéenekaay gi di enquête nee na nag jamono ji mën nañoo wax ne Sahel ma ngi yëngu Sahel ma ngi rag-rag yéenekaay gi di la na maa la ko wax jamono ji kay waa Sahel maanaam nooy seen nooy yi dañu ko acc yéenekaay gi di réew mi quotidien bàyyi mbir moomee wax ci mbiri coronavirus ñu xëy fekk ci journal bi professeur Moussa Seydi nee na coronavirus bi wàññeeku na bu baax ci réewum Sénégal waa Forum Civil ñoom Birahim Seck nee nañu nag mille milliards yi nga xamante moom la wax ne moom la dugal ci coronavirus bi maanaam ab rapport la xaar ñu daal koy publier ba askanu Sénégal gi yëpp xam milliards yooyee ana nan la ko séddalee que nan la ko doxalee yéen Cissé ñoom ñaar gisante nañ journal bi nee na lan moo waral gisante boobee ab laaj la lan la waxtaane ab laaj la est ce que nag bëgg ñoo taxawal ab parti ab laaj la journal bi nee na en tout cas li am ñaar ñoo xamante ni dañoo frustré maanaam gisante nañ di Aminata Touré ak Alioune Badara Cissé yéen a kaay gi de Les Échos nee na ndaw ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti socialiste ñoom yàkk nañu musiba ak mbelengaan ki nga ne mooy Aminata Mbengue Ndiaye ndax jamono ji gis ñu seen bopp ci mbir mi mbir mi am ci yéen a kaay gi di enquête mooy Abdoulaye jamono ji ma nga doxaa a signature bi la xëy duñu xibaar naan ñu démb am na accident bu méttee métti boo xam ne am na ba lu toll si juróom benn ci ay nit ñàkk ci seen bakkan lu toll ci fanweer ak ñeent am ci ay gaañu-gaañu ci route nationale numéro un maanaam fi nga xam ne moo tolloo ak jongolor ci région bu Fatick yéen a kaay gii dale si ko xëy duñu xibaar naan ñu tuwaana ñoom nag dañoo bëggoon a tabax lu toll si ñeent ci ay bureau marché ba toll na ci huit cent millions waaye na ñi nga xam ne ñ waa ARMP dañoo li nga xam ne mooy boobale marché ndax waxtaan bu jubóo la gré à la marché la boo xamante ni tegiwul fenn loole moo tax waa ARMP daal di koy dakkal ñi nga xam ne nag ñooy waa douane ñoom dañu doon lay naan bureau yooyu li tax ñu bëgg koo tabax maanaam bu ñu jàppee ay arme wala drogue fa ñu koy denc waa ARMP bi ñu dégloo douane ba pare douane wax ba ne gër géex ARMP jàpp na loolee waxi kasaw-kasaw la yéen a kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Luc Nicolaï nee na gars yi nañu dalal seen xel combat Modou Lo Ama dana ñu ko amal ci saison bii yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Diène Kairé mi nga xam ne moo daan bërki dee moo njaay muudu anta nee na nag jamono ji dafa bëgg a nekk roi des arènes société nationale d'électricité